keroog dañoo wax ci sàcc ay waaw ñu bari nag woo nañ ma nee nañ ma kat wax dëgg yàlla xamuñu ni woon nii nga ko waxee noonu la demee mhm. am na ku ni ma sax man de wax dëgg yàlla daanaa bàyyi ba heure jaar ci soxna si mu defaral ma ataaye ndax comme dafa man ataaye ma ataaye nelaw ba yenn heure yi dem ñibbi nee na xamul woon ni loolu sàcc ay la pour moom jabaram la leew na ko léegi nag ki ci nekkoon ba yàlla dogal ci loolu mu am ci doom mhm. attee doom jooju lañ bëgg tey nga ñëw ci ah, jërëjëf man mii sax amaat naa ci ay écho nag wax dëgg yàlla ñoo xam ne xëy na hmm. jàpp ñu woon na sax lu aay la euh, mais nañ ci bàyyi xel li nga war a xam rek mooy ay gi yow góor gi moomoo ko ba fu la neex noppaloo ay gi ndaw si moo ko moom mu ngi mel ni ñu toog di def émission nii ba ci yàgg ma bëgg dagg sa émission di defi leneen waaw <laughs> loolu mënul nekk parce que heure bii heure bi moomatuma ko man tant que émission bi jeexul. dégg naa dëgg boo ko daggee danga yéeg yëg ne euh, tooñ nga ki nga xam ne moo la joxoon heure émission nga war ko def. dégg naa dëgg léegi nag comme ndaw si moo ko moom soo jëlee jox ko nawleem. Mhm. boo xam ne ñoo bokk benn wàccuwaay ci yow surtout boo nëbbatoo mooy tax mu tudd sàcc mhm. mën nga ko forcer boo ko forcer moo gën a garaaw léegi nag ki def loolu mhm. mooy na yàlla li alquran doon wax ni mii lu fala tamilu kullal mayli loolu moo ko daal moom mooy dafa jeng ba daanu loolu nag boo ko defee non seulement am nga bàkkaar mooy nga yàlla mooy nga yonent bi mais dafay amaat sanction yu ci topp yu bokkul ak mooy gi bala maa ñëw ci doom ci ginnaaw bi ñu la bindalee. bàkkaar ay sanction am na sanction de. waaw am na sanction bi ci njëkk ginnaaw ñu la bindalee bàkkaaru mooy yàlla. Mm. yow ci boppam mëtatoo imaam. ki sàcc ay. waaw ah, bu dee imaam la woon. Mm. day wàcc. Mm. matatul seede. yërëm naa Assane. waaw matatul seede de. Assane Mesere. wallaay buñ doon takk sëy. du bokk ci ñiy seede mbaa sëy bu mu seede du wér. kii sàcc ay kii sàcc ay. Mm-hmm. buñ doon leblante xaalis ñuy wut. Hmm. seede hmm. moom du mën a nekk seede ou bien bu seedee seede ba du wér kii sàcc ay kii sàcc ay dootul mat imaam dootul mat euh, seede seede hmm. lépp lu ñuy jëmmal ñu war ko def ci kilifteef war a maye war a nàngam dañ ko ci génne parce que dañ naan ko yow moom mandootoo ndax da ngaa jéng ba tëdd doom ji juddoo nag moom la ñenn ci boroom xam-xam yi wax ne moom la ñuy tuddee doomu xaraam mooy doomu xaraam waaw yow dangaa ngaa def lu xaraam gis bu ñu daan xasan naan la yow doomu xaraam nga doomu xaraam nga loolu bokkul ak doomu njaaloo doomu njaaloo mooy ku judduwul ci buumu sëy hmm. mais kii ci biir buum gi la juddu donte baay bi dafa tooñ nawle soxna si dem ànd kële ba am ca doom ci loo xam ne ay la ñu ne ko def nga lu xaraam kon doom ca doom jam ca am waaw ñu ne ko yow doom ji doom ju xaraam nga ndax sa baay dafa def lu xaraam ah. mais loolu nag amul lien ak mu nekk doomu njaaloo c'est dégg naa la bu donn jotee dina donn mhm. mën na donn bàyyam bàyyam da koy donn mhm. amul benn àq bu mu koy xañ ci li ko lislaam di may diggante baay ak doom lu dul rek lu xaraam li baayam def mooy daa mooy yàlla ba mu juddu ci te mooy yàlla googu du mooy yàlla ak njaaloo nag ndax kii muy àndal mu ngi ci biir bu mu sëyam mhm. xam nga gis nga laaj bi fi gars yi daan def kii ki takkoon jabar te xamu ko woon ñoom ñaar ñu dajee ci benn hôtel. que ñu njaaloo ba pare ñu di ikki fekkaat jabaram la. Mhm. loolu du njaaloo. loolu du njaaloo ah parce que ci biir buumam la amee doom. waaye intention yi moo doy waar de. intention bi nag voilà intention bi daal moom. yéenee njaaloo la amoon. Mhm. yàllaa ko wallu mu yem ci jabaram. mais moom njaaloo ji la buggoon. Mhm. yàlla yemale ko ci jabar du am atteewu ku duñ ko atte atteew ku amul yéene njaaloo non non duñ ko atte atteeb ku njaaloo waaw am yéene njaaloo te njaaloo woo duñ la ko sanctionné ah duñ la d'accord loolu ci xeetu yonent bi d'accord yéene def lu ñaaw te mujjoo ko def mhm. duñ la ko bindal tey buñ tegoon fii maag yow ñu toog mhm. nga teg sa téléphone ma xool ba xam ne kenn xooluma ma yuuti di sàcc sa téléphone rek sama téléphone laa jël def sama poos dem mm. ma dem ba ci biti ma làmb gis ne ndeke sama téléphone laa jëlaat xam naa li nga wax. dama yéene woon sàcc sa téléphone mais dafa raté. fekk sa téléphone nga jël. jeex na du tax ñu bindal ma ci bàkkaar mais bu ma sàccoon sa téléphone nag ñu bindal ma bàkkaar. mais sama yéene moo doon ma sàcc téléphone bi mais raté na. dégg tax ñu bindal ma ci bàkkaar. la même chose que ki nga xam ne dafa takk jabar xamu ko. Mhm. ñu dajee feneen ñoom ñaar ñu tëdd. Mhm. après mu feeñ ka ne jabaram la. Mhm. ah su boobaa du am benn sanction wu njaaloo. mais nag ñaar day bu ñu wóolanteetee dana ma jaaxal de. d'accord allah kon daal léegi ki sàccu ay am ca doom na jàppale ni doom ja dam ci am doomu xaram la def na bàkkaar sanction yi mooy bu doon imaam la dañ naan ko yow bu ñuy jiital koñ bi bu ñuy tànn imaamu juma mënatoo cee bokk bu ñuy seede sëy doo ci bokk bu nuy seede bor doo ci bokk lépp lu lislaam di laaj ci seede pour mu taxaw yow mënatoo bokk ci seede yooyu ah gars dañ naan ku gën ci man ma gën ci yow waaw mais loolu dafa am limite waxoon naa ko mooy ci côté financement. <laughs> mais ay gi moom. Ah. ay gi moom ndaw see ko moom. macha allah ah waaw ay gi moom ndaw see ko moom. kon mi ngi noonu imaam euh, hmm. lii lu mat a bàyyi xel la yéen hmm. itamit yéen mbokk yi di ngeen am possibilité dina am ay euh, fenêtre bu ñu leen ubbil boo xam ne. du hmm. ñàkk am ñu am ay seen question yu lënt. ndax nag lii euh, boo fàttali ko ba may yor groupe whatsapp sëñ Maguette Fall. wallaay wallaay daanaa jóge caaray ba sa kër. di laaj si ay ay ay macha allah kon nag léegi am ngeen possibilité yéen ñiy seetaan. danaan daañu leen ubbil fenêtre boo xam ne ku ci am rek dañuy jox laaj boo xam ne chaque émission ñu jël ci benn daaj la